guys what up guys what's everybody sama gars yi bëggee ñëpp bëggee ñëpp going further allow me to introduce myself I go by of Molotchon and I'm from Senegal West Africa your city my town sama gars yi waaw du gudd du gudd ah waaw mooy loolu quoi waaye taanu koor lay doon rek koor time quoi you know what I'm saying bon tey ci li may wax mooy lii de laay wax lii l'État bloque les comptes de Modiké. À l'origine, un défaut de paiement de plusieurs millions d'impôts sur ses activités professionnelles et ses biens immobiliers. Les démarches de l'avocat et opposant politique pour vider le contentieux. <laughs> Le Sénégal dafa neex ba le Sénégal dafa neex <laughs> le Sénégal mooy man lu mu mën ko waxal mooy man euh, si t'es pas avec le roi ou la reine et que tu vises le trône du roi rek on te crée des difficultés quoi tu vois mais de que tamit garaawul mënu ko résoudre quoi parce que li ko résoudre mooy lan da dem ñëw toog xalamal buur bi quoi tu vois ne président bi jóg na mi ngi def terre bourse allocation sociale yi tu vois madame Faye mi ngi dimbali nit ñi mi ngi dimbali mi ngi def aide sociale mi ngi dimbali nit ñi Macky daal moo ko yor Macky deux mille ba deux mille vingt deux Macky yàlla am troisième mandat quand tu dis ça tu dis ça amul problème on t'épargne les problèmes quoi tu vois faut faire

waaw madame Faye Sall mooy sama xarit dafa baax kenn gënu ko Macky Sall teeru mi ngi jóg jóg baax et là on t'épargne tu tu tu vis en paix dans la société otherwise moom you'll be in troubles da ngay nekk fi ci ay problèmes tu vois mooy loolu donc dëkk baa ngi de li de mooy émergence bi émergence boo xam ne tey jii maanaam daal xool sa photo yi <laughs> nga créer ko problème waaw tëj ko waaw ku la tàgg nag moom il faut li li circuler librement quoi mooy loolu ah te ça Sénégal sama gars yi mooy loolu maa ngi ñëw ci beneen vidéo <laughs> Sénégal dafa neex.